sant yàlla bu baax di jul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñ borom yàggal ko fi lool kattanal ko wéral ko dëgëral ko te dimbali ko ci liggéey bu tedd bi muy liggéeyal Serigne bi di eh, yëkkati kàddu ci jataay bi ci kanamu kilifa yu tedd yi jiital ci Serigne Abibullahi Mbacke Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir ak Serigne Abdoul moom Serigne Abibou ak eh, Serigne Moutala Lo kilifa yi fi teew yëpp. di sant yàlla bu baax ci jataay bii ginnaaw bi yàlla dogalee Touba ca kanam jot ndigal mu jóge ci Cheikh Mahamadul Muntaqa jaar ci Serigne Abibu ngir diggante bii euh, lëndëm gu mu lëndëmoon mu joxe woon ndigal ci ne nañ ko leeral bi ndigal li ak nag yoon yi ñu baaxoo jaar jaar nañ ca te mooy tàmbulee ko ci wax ak ñi nga xam ne ñoom lañu ñu seqal dëkk bi te ñu féete ci wet googu di waa commune bi Euh, te yàlla dogal ki nga xam ne mooy jiite lu jëm ci wàllu éclairage public di sëñ Mourtala Lo mi ngi fi te biñ tàmbalee liggéey ba léegi ñu ngi koy ànd ak moom ak kilifaam sëriñ Abdou Lahad foofu la ñu tàmbalee ñoom bi ñu waxtaanee ñoom ba noppi ñu doog a jublu ci def lu ay étude ci ñi nga xam ne ñoo am xam-xam ci wet gi ñu def études yi nga xam ne moo ci war a aju ba génne dimensionnement yi wax alignement yi ak espacement yi nga xam ne moom la war a am diggante bu nekk morom ja ak poto lampe bi nan la war a mel. wax nan la war a guddee nan la war a tànk bi nu war a yaatoo massif bi koy téye nan la war mel yooyu yëpp bi ñu defee étude ba noppi ñu wuti nag entreprise yoo xam ne ñoom seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu éclairage publique ak électricité ñooñu yàlla dogal ñuy ay taalibe bokk ci kër gi jaayante daanaka xaw nañ koo jaayante ndax tuuti rek la leen Touba ca kanam mosal ñu jiite nag li nga xam ne mooy aju ci wàllu partie technique bi mën nañ cee tudd ko mel ne Coulibaly mi nga xam ne ñu bari xam nañ ko ci Sénégal ak ak ak ak Baye Ndaw mi nga xam ne moom ci wàllu éclairage public xam ne ci lu bare bari ci loolu nag ci la ñu kon tàmbalee ko ci wuti poto yi poto yi ñu ngi ko commandé ci an entreprise bu nekk Tunisie mu toll ci cent 190 poto poto yi mu ngi guddee eh, daanaka 9 mètres 9 mètres yu mag 20 centimètres la xëy na sax bu tegoo ci kaw massif bi dana ëpp dana mat 10 mètres ci yenn zones yi nga xam ne dafay xaw a gudd wala mu xaw a gàtt massif yi tamit ñu wut ñoo xam ne mën nañ koo liggéey ci wàllu génie civil ñu liggéey ko ci anam bi gën a dëppoo jamono câble yi li nga xam ne moom la études yi génnee ñu dem jëndi ko wut nag ñoo xam ne ñooy taxawu main d'œuvre bi loolu yëpp nag sëñ Xaarim Dieng nii moo ko doon moo doon coordonné liggéey boobu Touba ca kanam dénk ko mu taxaw fi di def liggéey boobu diirub li nga xam ne ñi ngi ñi ngi ci di ko liggéey liggéeyee plan yi ba noppi loolu da nga koy jël yóbbu ko seenee Sénélec am na lu ñuy wax grand compte da ngay dem ñu viseel la ko wane ne accepté nañ li nga def liggéey boobu def nañ ko euh, diggante poto ak morom ji bu nekk 30 la Euh, liggéey bi tamit bi ñu bi ñu bi ñu xaymaa nombre de poteaux yi nga xam ne monté nañ ko mu wër fii 167 lay tollool li commencé ci kër sëñ Sidi Maxtaar gi moo moo moo woon dédouanement bi fayoon ko ci mooy li may faral mooy li may faral di wax ne liggéeyu Touba ca kanam léeg-léeg montant bi ñuy annoncé ak ak bi ñuy kii dana ko ëpp na loolu kilifa yi dana ci ñëw sax gën a gën sant ñi nga xam ne jàpp nañ ci sëñ Lamine Sarr douane moo moo jaayante woon dédouanement bi. ñu lii di fam nuyoo bi di ko teg ci loxol Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mamadou Mountakha te yàlla dogal ndigal lii bi ko Cheikh mun Mountakha di jox Touba ci kanam Cheikh Mamadou Bachir mi la ko jaawee lool yàlla def tawfeex ba Touba ci kanam def ko ak Cheikh Mamadou Mountakha yebalaat Cheikh Mamadou Bachir mu ñëw ko ñu taal lamp yi tàmbali kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ci tuub Serigne Habib ak Touba Touba ci kanam gépp di sant Cheikh Mamadou Mountakha bu baax ci taxawaayam ci itteem waaye ak bàyyi xelam Touba Ca Kanam di ñaan suñu doom mu yàggal ko fi ba lépp lu mu yéene defal sëñ Touba ji mu def ko na mu ko bëgg daan ànd koog moom ci bëgg sëñ Touba lu mu gudd gudd ci càmm cant lay tàmbalee yam ci cant cant gi nag sëñ Touba mi nu yàlla boole defal defal nu tawfeex nu nu nu ne ci gannaawam ci moom moom muy suñu lépp tey ëllëg moom lañ koy seeraloo te di gën yeesal sunu jaayante sëñ nen si si amoon muntaxaa sëñ bu nee na moo waaj fa ci kanam jekk nañ ndigal lii daanee nañ ko waaye ñu ngi dugli leneen lu dikk fas nañ ko yéene def dara tax noo jug lu dul liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi yàlla nañ ci eh, daje ngërëmu sëñ Tuubaa sëñ suñ borom yàggal ko fi a ngeen jëf ci ndigalul sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxaa mi nga xam ne ci ndigalam la fi teewe muy kaddu yu nuyoo ak cant ak ngërëm muy kaddu yu nuyoo ak yooyu cant ak yooyu ngërëm yóbbante waa daayira Touba ci kanam gépp di ko nag yóbbante waa daayira Touba ci kanam bépp ci njiitalu Serigne Abibou Mbakke ci njiitul Serigne Abibou Mbakke moom Cheikh Mahamadoul Fadal moom mi nga xam ne mooy seen jëwriñ ak Serigne Abdoul Ahad Mbakke ak Serigne Abdoul Ahad Mbakke mi nga xam ne suñu waajura mi nga xam ne suñu waajura ak ñi topp ci seen ginnaaw ak ñi topp ci seen te buñ ci tuddee nag sëñ Abdou Fatah Gaye mu yóbbaale leen. kon sëriñ bi. kon sëriñ bi. Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na. Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na. mi ngi lay sant bu baax. mi ngi lay mi ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm. ci jëf ju màgg ji. ci jëf ju màgg ji. nga xam ne itteel na ko. nga xam ne itteel na ko loo xam ne moo ko waroon def moom ci boppam. muy loo xam ne moo ko waroon a def moom ci boppam. waaye ngeen gàttandu ko ca waaye ngeen gàttandu ko ca yàlla def man mii la yónni woon ndigal ci moom yàlla dogal na it moom mii la yónni woon ndigal li ci yéen ngeen gàttandu ko ci mbégte ngeen gàttandu ko ci mbégte ak xar kanam bu tàlli ak xar kanam bu tàlli ak jëf ju ak jëf ju pësteefu ba defee ko nii mu sottee ba defee ko nii mu sottee kon nag nee na lam leen daan seereel rek nee na lam leen daan seereel la leen di seerelaat la leen di seerelaat mu dox leen rek yoon waa ngoogu mu ne dox leen rek yoon waa ngi noonu ndax wóor na ko ne ndax woor na ko ne bu seen yéene àggee. bu seen yéene àggee. lépp lu war ci dëkk bi rek. lépp lu war ci dëkk bi rek. da ngeen ko def. te yéen a ngi ci yoon wa. kon nag mi ngi leen di sant. kon mi ngi leen di sant. ndax nee na yaa moom da ngeen bokk Pastef. ndax nee na yow sëñ Abibu yaa moom da bokk Pastef. lii la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké seereel léegi. lii la loolu rek mooy li ne loolu rek moo nekk ci yow. mooy jëwriñ ju mat jëwriñ nga. mooy jëwriñ ju mat jëwriñ nga. ndax man ngaa maslaak ñëpp. ndax man ngaa maslaak ñëpp. te yàgg na woyof ñëpp. te yàgg na woyof ñëpp. te te lépp sa sa lépp sa bëgg sëñ Tuubaa liggéeyal ko lépp nag sëñ bëgg sëñ ak liggéeyal ko rek ko waral soxla woo ci dara lu may liggéeyal sëñ Tuubaa ngërëmam lu dul sàkku ngërëmul sëñ Tuubaa ak liggéeyal ko loolu tey ndax loolu du te ci loolu képp la ñëpp xam nag. te nag loolu ma wax ci la la ñëpp xam. te njiit moom bu jiitoo. te njiit nag bu jiitoo. dox na mu war a doxe dox na mu war a doxe ña topp ci ginnaaw ñëpp seenum xel dal ci moom. ña topp xel day dal ci moom. bañ na ko ba am ndaje sax bu ngeen defee. bañ na ko sax am ndaje bo amee. du ngeen nangoo génn ci xaalis jënd ndoxum naan. du ngeen nangoo génn ci xaalisu Tuubaa ci kanam jënd ci ndoxum naan. loolu mu ne ko weesu ci ak leeral. sëñ Abdou Lahad yow itam. sëñ Abdou Lahad lay sant bu baax. noo ngi lay sant bu baax. ci ni nga ànd ci ni nga ànd ak sëriñ Abibu ndax yàlla mooy boole. ndax yàlla mooy boole. la sëñ Tuubaa seere woon ci diggam ak maam Thierno. yéen ñaar ñii am na ñaar ñii am na ci seen diggante. ndax kenn kenn ci mënut a ci liggéey bi. kenn mënu cee ñàkk ci liggéey bi. loolu suñu borom moo koy def. loolu nag dogalub suñu borom la moo koy def. kon loolu pàgguteefuk sëñ Tuubaa la. kon daal sëñ Muntaxa sant na leen ci liggéey bi. nee lim leen di gën a santaat it. nee lim leen di gën a santaat it. mooy ndigal lim joxoon. mooy ndigal lim leen joxoon. ngeen jàppale waa Maawu Rahmati ci ndoxum Touba. ngeen jàppale waa Maawu Rahmati ci ndoxum Touba. waa Ofor ak waa Ofor. nee na leen ko waxee rek. nee na ba mu leen ko waxee rek. la ca xelam dal la ca xelam dal.